salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamaani halaa maahin maal absa wa safar ngir gën a jege ay kliyaanam digital store yokk na réseau ubbi showroom bu bees tàq ca Colobane immeuble CMS janoo ak caserne Samba Diéry Diallo digital store di leen proposer gamme bu yaatu ci wàllu électroménager ay téléphone qualité supérieure ay matériel informatique de dernière génération lépp lu mujjee génn ci informatique fekk leen ko digital store digital store di représentant exclusif moom dong moo fi teewal marque bi di Crosscall ak ay téléphone portable yu mucc ayib dëgër lool ba noppi étanche ñu garanti ko ñett ba jurómi at benn defarkatu téléphone ñemewul garanti téléphone juróomi at digital store yëgal ay clientam ne am na service après vente bu mucc ayib nekk fii ci Colobane nga xam ne dañuy liggéey 24 heures sur 24 am équipe boo xam ne dafay jóge ci place bi dem ba ci seen kër mën nañoo liggéey 24 heures sur 24 fu ngeen ñu soxla ci Sénégal suñu service après vente dafay def tamit ay contrat d'entretien ay contrat de maintenance ba noppi te di leen gunge ci bépp réparation ak entretien yu seeni appareil yi ngeen jënd ba noppi seen partenaire de référence Digital Store mën nga jokkoo ak ñoom ci 33 842

bis ba yayoo way ba géex mooy màggalu go Tuuba bismil ilaahi na ngeen jugu bis bi nu saf bis ba yayoo way ba géex mooy màggalu go Tuuba mooy bis bi tax tey nga tal yorte la yar sa sikkin dinaan sawar nga ak di dingat gor ya jëm Tuuba lu jiitu bis bi ku daa bañ noon di xëy na ko rey ku feex ci diineem na fonkaat màggalu ko Tuuba ki tax nga tax soo amee jom war nga koy taxanal ki tax ñu taxa bisam mooy màggalu ko Tuuba 18 ci weeru safar mooy bis ba Ahmaduna génnoon dajeek noon ya daa bañ nit xam Tuuba ngir yàlla ak sunu ndimbal rek moo taxoon mu la fas dadd njaboot geeg ña daa jaayante fi Tuuba ay ati at la fa def at mu ne ñuy gën ful na toom ya ngir bañ mu dellu seen ndam ci biir Tuuba moom rek a dem dellu si maslaawul tasaalitu ni tey way di wax lam daa wax bam jugul Tuuba جل عن مثل توبوا له واتركوا تسليس دم توبا moo bari ndam te damoo wul lenn yàlla la gis déglul ma wax bam ñëwee lum sant waa Tuuba ndigal la mooy daf ni woon sa mbég te kum di sa mbég bu bis bi dellu see te bis bay màggalu ko Tuuba nang ma ci santale waat buur yàlla kon lu ma am si tukki beeg bokk koog yow cey borom tuuba ku am ginaar wala xar baa ba jàpp giléem bum naw te bum xeem na dundal màggalu gu tuuba billaahi kii moo di saa nafin bila dararin moom rekk a sonnoon ba am an jox ko waa tuuba mboolem teraanga yi ak xeewal yi moonu ko may sant le ko ak sant ko war kon ilaa Tuuba ku leblewul wara fay kuy gor bisub fayangi nañ wëq gaay te màggal màggalu gu ku leblewul wara fay kuy gor bisub fayangi nañ wëq gaali te màggal màggalu gu nun jekk nan jekku nan màggal ko rekk a ci des nañ def ba def lu nu manul ngir màggalu gu safar la nit di raweeg maasam ku yeewu te xam ciw gàmm lay door di waajal màggalu ko la in zakartum ku koy tafsir te bëgg mu wér 18 ci weeru safar waajal nga ñëw Tuuba kon daga gis la azidannakum jabu wér añub safar dafee teew li wër na waa Tuuba di bér na ñaar fukki fan at mu ne ngay gën mën doo pett doo daanu yem naa màggalu ko Tuuba moo jara miiraasu moo jara dox gaboo ba bawal xawma ci dunya lu jar màggal si woo Tuuba bis la bu ñuy sant tey ziyaare Ahmaduna jullit ñi bennoo di dundal diine biir Tuuba bokk ya jom ko ña di wallare ñëw dajewaat kom bi yëpp di dox cey màggalu gu Tuuba murit ya jël seeni kër jox gan ya kenn du xatal bernde ya gandoo ne yem màggalu gu Tuuba loo gis ci berne ba ko yem far leneen ni jarañ raw du rayaaxin di benneel ruux ya ñëw Tuuba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 همالي هلا ما هن ما الأبس والسفر